gis nga tariqa bi li ma waroon wax ci sharia bi tariqa bi moo koy complété sëñ Abdou nee na dafa am bis ñu ànd ci oto mu ni ba sëriñ Babacar ne li manqué ci suñu sharia suñu tariqa koy mottali dafa ma jaaxaloon nee na ma di ci xalaat ba bis ma ñëw dëj Cees ñuy jàng kaamil bi séddale kaamil bi mënta jeex hmm? waaw ndax ñi ko mën a jàng foofu bariwul nee na ñu joxe ay dog ci salaatul faatixi pour lim ko kurus yi daana ko doyul ndax bari ndax ñépp a ko man nee na ma ni ah kon nag li manqué ci suñu sharia moom la suñu tariqa di dabu sharia moom mat na waxin la mooy li nga xamante ni yow mataloo ko ci sa sharia nitu yalla jox la lo xamanteni dina la ko compléter ci sa tariq ci sa sharia wa lan motax ñuy nafila farata yi du moy suba tisbar takkusaan timis gee du loolu mooy juróomi farata yi lan motax Serigne babakar ni poñet moy tal ngànj xale yi xam ngeen poñet poñet moy ñax mi ñax mo wowu mi ngay jël xamulen ko de ngànj mooy matt gu rëy xam nga matt boo jëlee sa almet rek di koset noonu di ci teg du tàkk de poñet nag mu ngi mel ni mooy mooy pétrole bi rek ak ñax mu wow moomu nga teg ko ci jafal ñax mi mu jaf mu tàkk taal ngànj mi loolu la sëñ Babacar ni poñet mooy taal ngànj maanaam naafila yi mooy tax sa ruux yéeg parce que farata yi boo ko defee sa diggante ak sa boroom rek la waaye wa man tatawaa xayran fa inna allaha shakirun alim yàlla nee na ku coobarewu ma sant la gërëm la te xam naa ko te dinaa ko xam mooy nga ni yàlla suba de nga ma teg jullil naa la suba ñaari rakkay suba foofu tam na ngeen ko bàyyi xel yéen jigéen ñi surtout parce que ñaari rakkay fajar bokkul ak ñaari ràkk rakkay suba ñaari rakkay fajar mooy bu ñu noddee salaatu te julleeguñu foofu ngay def ñaari rakkaa yi bu ñu boobu nag naafila la sunna la waaye bu ñu xisee bi nga xam ni nag war na la mooy bu ñu xisee taxawal mooy ñu ñaari rakk yi nga ngay julli julli biral gi suba ñaari rakk yele fek iner heure jotul nga yeewu mën nga koo fay waaye bu une heure une heure demi jotee dootoo ko mën fay waaye farata bi nag foo yeewoo war na la mooy ñaari rakk yi suba yi loolu sew sew la boo xamante ni war nañ koo xam soo yeewoo fekk jant bi xonq foofu dafa xaram ci nga naafila fi kon julli suba rek nga fay julli waaye bu jant bi ne dàng ba mënatoo koo xool nag su boobaa foofu ngay julli fay sa ñaari rakk fajar yi nga xamante ni moom nga waroon a julli avant ñaari ràkk suba yi ndax ci njëru imam malik dafa haram, nga naafi la diggante ginnaaw jullik suba ak ginnaaw jullik tàkkusaan daf ci haram bu xonqee dañ ko dafa haram, bu buñ jullee tàkkusaan ba noppi daf dañ ko sib bu bu ñu suba ba noppi mu leer noonu rek te jant bi door a dañ daf dañ ko sib bu dafa haram ci nga def ko ndax ñi daan jaamu jant bu jóg ak jant buy so looloo tax ñu haramal ko ndax am na ñoo xam ne bu jant bi daan jóg dañuy jaamu ñu bañ nga toppatoo la toppandoo loola buy so dañuy jaamu naan lii de xam nga Ibrahim sax loolu la waxoon ba mu gisee weer wi dañuy weer wi de kon mooy yàlla ndax ni mu leere mu suux mu ni ah luy suux binduma mu xëy gis jant bi ni wu bi moo gën a rëy te moo gën a tàng kon bi yàlla ñu dem ba jant bi xonq cooy suux mu ni ki leen bind daal di leeral bii di leen suuxal kooku nag moo tax laa tasjudu li shamsi wala lil qamar walakin wasjudu lillahi alladi xalaqakunna xalaqahunna in kuntum iyahu taabudun yàlla nee na bu leen sujjootal jant bu leen sujjootal weer sujjootal leen yàlla mi leen bind bu fekkente ni moom dong ngeen di jaam moo tax nga xam kon waaw li tax yoor yoor génn jot nga na nga jullil yàlla rakka parce que mag ñi dañu seet li yàlla ju giñ yépp ñu julli ci wadduxe mooy yor-yor nga def julli gi yor-yor wallayli idha sajja muy guddi nga def nafile ci guddi de nga ñom ya mag ñi dañu def loolu moy nawafil yoyu xam nga juroom fukki julli lañ joxon yenente bi riñan ka hein mu diko wañi lu ba mu des juróomi julli mag ñi fexé nañoo fexé ba duggal ko ci bis journée bi juroomi julli man Baye Mbaye doon la joxoon nañ ma ci benn kay kayfiya boo xamante ni euh, gis nga mu ni soo jullee ñaari rakk fajar xam nga li mooy juróom fukk julli ñaari rakk suba juróom-ñetti rakk yoor-yoor dégg nga jiital ñeenti rakk a tisbaar julli ñeenti rakk a tisbaar tegaat ñeenti rakk a ginnaaw tisbaar man gis naa benn xadis bu yeneen bi wax ni sallallahu alaihi wasallam. sallam def takko ko di nga dem aljanna comme dañu sip nga naafila avant après takusan. nga jital ñenti rakkaa takusan julli ñenti rakkaa takusan julli ñetti rakkaa timis julli juróom ben ginaaw timis sayyid haji malik neena na yore tariqa bi julli ñaari rakkaa timisi wala juróom ben yi su ni ba mu rëcc la nga watte ko juróom fukki salaatul fatih léegi boo jullee ñeenti rakka yi gee naafila ñaari rakka safa wittar juróom fukki yi gis nga moo tax naafila yooyu mooy tax nga yéeg sa ruux yéeg nga miin yàlla gis nga naafi la yooyu ngay def nag moo tax ngay coobare di jàng jël tariqa waaw dof yi nag naan dangaa jël sëriñ bi def ko yàlla fekk dedet parce que tariqa bi safa tar bu le rëccee ñetti jew ñetti jew hëratul kamal nga koy remplacer bu la safa tar rëccee Seydi Hadji Malick nee na yow mi jël tariqa bi na nga jang ñetti jew hëratul kamal safa ak witar nak fek man nga julli ñaari rakk suba man nga ko fay hmm. fek yaangi ngi julli ñaari fajar ah par exemple def nga julli nga gee safa witaro nelaw ba fajar dégg ñuy salatu, wala ñu noddu genn nodd julli ñaari defal sa safa ak sa witar julli si ñaari rakka fajar dooru julli si ñaari rakk suba bu fekkente ni nag passé na ba julli suba gi jot dootoo mën a fay safa witar foofu la la cheikh na tijani ni daboo ko ñetti jëw hëratul kamal foofu la waxe sax ni yow mi jël tariqa bi di wazifa te doo teewlu xam nga teewlu dafa jafe teewlu parce que dañ ne la yow mi wazifa wala di wird na nga teewlu jëmmi yàlla kartanu yàlla dal soko ko mënul màggaayam teewlul yonent bi sallallahu alayhi wasallam soko soo mënul teewlul Cheikh na Tijani soko ko mënul teewlul ki la jox jëm serigne serigne bi la jox tariqa bi soko ko mënul teewlul bat yi ni ngi koy waxe اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما lima ديكو ديغلو دينا تخ dina دو ده mais si Hadji Malick nee na nag comme teewlu dafa jafe ñetti jëw jawharatul kamal mooy remplacer teewlu ñàkk a demee ca Fakihatul Tulab di nga ko fekk sama woy moo ma wax ni ma fu ma mës a sëlmale wittar jàng naa ñetti jawharatul kamal ngir jànge ko ñàkk a teewlu bay bay moo ma ko wax moo tax bay mbay nee na ma wax naa Serigne Cheikh ni ko waaw di wasifa sa xel di dem ci leneen ak loolu ak di wirt ndax teewlu mu ni ko Babacar duggaale nañ leen géew wasifa leen rek duggaale nañ leen géew parce que kiy jàng salaatul fatixi wala salaatu ala nabi te di ko yàq sax Serigne Cheikh moo wax ca Demba Diop ni tiflit yiy génn ci làmmiñam yàlla da koy jël bind ci ay malaayika ca ardu zimzima malaaka yooyu di julli ci yonent bi ba keroog yàlla di taxañ suuf yool ba ñu di ko bindal ki nga xam ne da doon julli ci yonent bi te mokkalul sax salatu ala nabi nga xam ne salatu ala nabi moo for moo tax dee leen julli ci yonent bi dee leen ko def sallallahu alayhi wa di jàng salatul fatixi jël tariqa bi dee leen ko jël parce que tariqa bi pour sauver la xam nga ulama wu shariati oustaz ji bi Lalu maulin len wutale ak al ulama ulamaaw shariati li ci tere bi rek lañ yam xam nga dañ ne la yalla bindal na la ñaari malaaka yo xamanteni ki moy yaman bind lu bax ki bind safaan pourtant Cheikh na Tidiane yi na la jang ya man azhar al jamila ñaar fuk par bis so bay tarfati sax di joom sa bakkar malaaka yi duñ ko gis ba di bind allahuma yaa man adharal jamil yow mi ma feeñalal li ma rafetle wa sataral qabiha nëbbal ma li ma ñaawle sutura boobu mooy tax kenn du ko gis xam nga kooku nitu yàlla ko wax sëñ Abdu nee na sëñ Babacar dafa am jigéen bu ko ni ki bëgg a sa bi parce que moom daawul gis jigéen sëñ Babacar daawul gis jigéen ju dul soxna mësu ko gis daayira jigéen yépp buñ masaane ñëw dañuy tok ci ëtt ba mu nekk ci bir pantre ba di wax ñuy jotali ba ben année soxna njooro beng ni ko ni ale fatim neel gor gi dañ ko bëgg gis ndax ñi ñu bokkalul daayira ñuy ñaan ñaawal naan du ngeen gis seen sëriñ mu ni ko neeleen ñu tànn gis ma fii te ëllëg duñu ma gis wala ñu muñ ba fa gisa neexe ëllëg ñu gis ma mu ni ko tànn nañ muñ ba ëllëg ñu gis la sëñ Babacar ni waaw kay ni ko yàlla tere góor ñëpp la ma ko teree dama ko nangu ñu bañ ko rek moo tax daawul gis jigéen ju dul soxnaam ay doomam yu jigéen daawul leen nuyu sëñ Abdou nee na bu sëñ Babacar daan génn ci couloir bi fekk ñoom soxna Zeynab ak soxna Aminte nekk ci couloir bi dañ naan leen fatu leen góor gi dafa bëgg a génn suñ ko waxee mu ni su ma leen nuyoo di leen jox loxo te dagan na ma ma xañ ko ñi nga xam ne daj ma soppite juruma leen yéen rek ñëpp laa jur léegi ah <laughs> moo tax ba ko jigéen ja waxee ale Fatim ni ko neel neel ni sëñ Abdou neel na dañuy laaj neel sëñ Babacar ki bëgg sangu farata te bëgg sangoo saabu nu muy def bu mu ciy jëkki mu ne ko bala ngaa def liñ la santul dangay def liñ la sant ba noppi te liñ la sant mooy sangu farata ba noppi door a sangu saabu wa bu pan ba ci yi nga xamante ni jëkke nga saabu bi ndox saabu ba dugg ci ndox mi soppi ko nak dootul làpp di la mëna sangal sangu farata ha? Ah, ma ta da ngay sangu farata ba noppi doora sango saabu ñu ni ko waaw japp benn benn bi ngay def ci sangu farata xam nga dañu ni da ngay japp benn benn bo xubbi ko déparé fii bëj sa wu xubbi ko moy raxas ba mu set da ngay japp benn benn da ngay japp benn benn sëñ Babacar nee na boo ci naree julli def ko ñett ndax moo gën a mat xam nga benn yoon rek mu tooy yombul mu ni def ko ñett soo boo ci bëggee julli kooku atte aarif billahi la kooku nitu yàlla moo ko atte moo tax loolu nag ngir di ci yéen ñi ci jël tariqa bi am na ñoo xam ni dañuy ragal naan tariqa bi dafa diisa tariqa bi disul parce que tariqa lol lañ koy doy sëriñ do ñëw ci mom rek niko ko maa ngi dem sa yoon lu leen di tabole ah ñëw na jox na la sama bop rek dem sa yoon lu leen ti li lan mo leen bolé dara bolé tule mom kay da ngay ñëw talal ñu may la tariqa bi te sa loxo ndey jor jaayante ngay wiir di suba di wir di ngoon di fa suba di fa ngoon surtout nag boo jëlee siit si la kër Seydil Hadji Malick foofu sew-sew da cee am parce que da ngay gis man dama dem Italie benn jigéen bi ma dalal maag sëñ Moustapha fa la ñuy añee bu ñu nekkee hôtel euh, ndaw si sëñ Moustapha moo ko may tariqa bi al amin ba ma ñëw mu ni ma man de damaa jëloon bi ma booleeg sëriñ bi ma jël fa tariqa bi ba nëgën yi bi ma ñëwee di wirdi di fa suba angoon dafa am ko ni ma waroo fa suba angoon benn rek la cheikh wax ba tax dama koo bàyyi ma ni ko déedéet waroo a bàyyi ma ni ko parce que cheikh na yi moo ni boo ma nee ñaar yi moo ma gënal te Maodo nee na moo ma gënali cheikh nag duma ko bàyyi ñaareel bay ca pay pay ba fa Maodo nekkee taalibe yi buñ mësaana julli timis dañuy waxtaan ba gee te foofu dañu sib xaraamal fi ko ci waxtaan sedd Hadji Malick roof fi wazifa ni dootu leen ko tal wa waxtuha al masa awi sabaaxu jamcuhuma fa xasanun rabaaxu ma doone wa waxtuha waxtu wazifa almasa mooy ngoon awi sabaaxu wala suba jamcuhuma suba ngoon nag fa xasanun moo rafet rabaaxu te moo ëpp bénéfice ma ni ko dang ma ni ko sëñ Abdou ci boppam laa jottalil ci kër gi mu ni maa laaj sëriñ Babacar Si ni ko ki jël silsila ci silsila Seydi Hadji Malick su bàyyee benn wasifa bi est-ce que da koy fay nee na sëñ Babacar daf ma gëdd ni ma bañ fay da koy fay kay moo tax loolu na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax sëñ Abdou wax nañu fële ci gànket hmm. mu ni ku jël bokk ku nekk silsila Seydi Hadji Malick te doo wasifa suba doo wasifa ngoon nee na boo ci saxee ndox ci tarixa bi moom moo ko ah, waaw waaw ah, xam nga loolu dafa bokk ci charte yi charte yi nga xamante ni mooy dog nit ci tariqa bi wal iyaazu billah mooy adamu tarkil wirdi tahawunan adamu tarkil wirdi tahawunan bàyyi wirdi wi te doo ko def te tey ko ngir doyadal ko dangay ngay dog man de maa ànd moom ca Espagne ñuy waxtaan ni man moom sëñ Moustapha ak Adama Fall ndeysaan rahimahullah ma ne ko sëriñ bi dey am na ñoo xamante ni dañoo yaakaar ni cër bi ngeen am ci tariqa bi tax na yéen du ngeen wasifa du ngeen wird te du ngeen xadratul jumaati ndax am ngeen cër buleen xañ bu leen may loolu yaay mu ne xinnet xool ma ni ma laay ajjuma bi ma ñëwee fekk sëñ Babacar di añ parce que sëñ Babacar bu daan añ loxoom lay lekkee te day sukkit keroog la ma ni sëñ Babacar bu daan añ du toog nii sax day sukk comme kuy julli jàpp ci bool bi nii sukk jataayu julli <laughs> ndax yaru mu ni ma mësuma koo fekk muy añ lekk te deful noonu mësuma koo fekk muy wasifa wala muy wirdu te du dafa def jataayu julli nii waaye du du du du du te dañu ni al muntahi ki nga xam ni bu yenent biy ñëw ak saxaaba yi dina leen gis koko am feren droit lay bu fekke sa ay tànk melul ni samay tànk yi metti al murtadi nak koko mom dañ ko wax ni ko na toog jataayu julli concentré wu muni ma keroog bama ma ñëwee fekk ko muy añ ma waxu dugg ci neeg bi sal bi fekk ko muy añ nee ma ñëw muni ma lan la Abdou Aziz nee na ma ko dama bëggono jël wért nee <laughs> na ma talal nee na ma talal momay ma tariqa bi ba noppi nee na keroog nii la def loxoom xam nga ki la may wird daa war a dangaa war a téye loxoom nee na keroog nii la loxoom ni ma téyel fii nee ma téye fii pour mu jàng mu bàyyi abi inna alladina yubayiunaka innama yubayiuna allaha yadullahi fawqa aydihim fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi llah fa sanutihi ajran azima mu ne ma boobaak léegi fàttalikuwuma fu ma fa amee boru wasifa wala boru wird pour wan ko taalibe yi ba mu ñëwee ca cérémonie ba ci saal bi daf ko wax li na ngeen bàyyi xel lool daf ko nett bi moo tax keroog sax wax na fa ay nit parce que li ko indi wax booba li ko indi dafa am ay njaboot yu fa nekk am ko ko ni diw mii dey ak diw bu amee xaalis daal du wér du du wasi fa waaye bu amul xaalis commencé wér wasi fa te ay fan a ngi nii ay weer defu ko ndax amul xaalis sëñ abdou ni quoi loolu ko ko def adamu tarkil wirdi tahawunan la da ngay doble la yanfauhu illa tawba wa tajdid da ngay dem ñu bessal la motax bok na ci charti boy ñaan wirt liñ lay jëk wax moy fonk ci julli juro mo ku dul noy nekké wala murit wala khadir, waaye bala nga don PS wala PDS mba APR da ngay don sénégalais ba nopi waye bala nga am tarixa kay da ngay don julit ba nopi waye julit la eh, murid la tijaan la waye duma lolu mën ta nek kon kay da ngay nek julit ba nopi motax muni la premier charte julli nang koy matal diko def ci mbolo ak lab so amul ngant deuxième charte mun la sanday ak sa bay na nga len teral lo man ci dimbali len seigne Babacar da wax càq su mooy dund loo mën ci jàppale leen cagar su loo mën ci koddaay càkket si loo mën ci dëkkuwaay suñu dundatul nga di leen ñaanal parce que ku sa way jur di dund defaloo ko dara ba mu faatu nga di ko ñaanal mel na ni defal nga ko àdduna ak li ci biiram ki sa way jur di dund nga di ko defal lépp mu faatu doo ko ñaanal mel na ni mësoo ko defal dara foo jullee jàngal sa faatixa fukki lixlaas ak benn ñaanal ko say way jur muy colis ba mu jot ne lii kat sama doom diw moo ma ko jox te loolu yonent bee ko wax de xaddis la ida maata bnu aadama inqataa amaluhu illa min thalathin sadaqatin jaria aw ilmin yuntafau bihi aw waladin saalihin yad'u lahu yonent bi nee na doomu aadama ba faatoo jëfam day dagg ba mu des ñett sarax buy wéy bu mu fi def xam nga yow mi tabax école nit ñi di ci jàng sarax buy wéy la yow mi tabax kër sax am ko fa dëkk sarax bu yooyu la yow mi gas teen yow mi yow mi yow mi jëmbat garab nit ñi di fa féexlu sax sarax buy wéy la yonent bi ne yiw la fekk nit ñaa nga fa yiw la wu dul deñ di la fa fekk aw xam-xam boo fi bàyyi nit ñi di ko jariñoo yiw la wu dagg di la fekk ci bàmmeel doom ju baax joo fi bàyyi mu lay ñaanal waaw waladin saalihin yadu lahu doom ju baax joo fi bàyyi mu lay ñaanal nee na yiw la wudul dagg ci bàmmeel moo tax charti tariqa bi sa way jur sëriñ bu la ni bàyyil sa way jur te ànd ak man wacc ko du waaja ndax bala laa yàlla gërëm sa way jur gërëm la moo tax Seydi Hadj Malick dinaa koy wax toujours lu mu bind buy ñaanal kenn day ñaanal way juram doora ñaanal sëriñam yéen lu ngeen di jàng ci yaa akramal kurama fastur hunaka كما في ذي معائبنا يا الله يا ربي زحزحنا عن النار yow yàlla yàlla nu ñu sutural fii ak fële yow yàlla yàlla nu ñu soreel safara lu mu ca teg wa walidayya ak sama ñaari wayjur door ni wa ashyaax yi ak samay sëriñ wa shiatana ak sama famille ahibati ak ñi ma sopp mooy ñun ñi wa dawil islaami ak waa lislaam gis nga ca tey siir lu ngeen di jàng wa wasaamixan lu ca topp waalidiina yow yàlla yàlla na nga jéggal waalidiina suñuy wéju door ni wa shuyuuxa ak samay sëriñ wa man qad waladu famille ñëw wa dawil islaam yi jullit yi ñëw te dem na sax ba ca fin ba mu ni faxfir lana yàlla nag ñu jéggal wali man ak ñeel ak ñi nga xam ni nasabun askan même bay ni naa dox na suñu diggante min jihati tiini sax koo bind muy nit rek yow yàlla jéggal ko pourtant suñ maam borom Touba loolu la wax waaw yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamia al wara yaa hadiyan radaa yaa malikal mulki yow buuri buuri yaa man jalla an qawadin yow mi nga xamante ni yaa tiim lépp dara du la wama loola neex def irham jamia al wara jéggalal mbollem yërëmal mbollem mbindeef yi wa seen mamad ba muy ñaan ci xuruf ba lu mu wax la naghfiran rabbi wa walidina maghfiratan ta'um muslimina ba muy ba muy ñaan ci khilas zahab lu mu wax asbil alayya rida asitri yashmuluni wa walidayya wa ashyaqi ma hashab way jur yi la indi door indi sëriñ sëriñ bu la ne waccal sa way jur ñu ànd wacc ko teguwul ci yoon maa ko wax ndeysaan dafay laaj ndax xisbul dinañ ko jàng guddi man de duma ko jàng guddi ndax man ba ma al amin mu ni kuy bari looy jàng xisbul baxari guddi man ngaa dem kaso waaw moo ko wax de kenn maa ko jot leen mu wax ko de mais xisbul ko koy faral di jàng guddi lool mën ngaa dem kaso waaw moo tax di ko jàng bëccëg nag <laughs> moo gën a wóor nag waaw ñi naan say fii ku koy jàng day joxe ak ñàkk ah ñooñu xamuñu li xew xam nga alxisbu say fii eh, yaa man azharal jamia laa ko gën a foor xamoo waaw waaw boo demee ci tarjumaanu yaamal azhar al jamila yaamal azhar al jamila dinañ la wan ni la moo gën a foor alxisbu sayfi waaw li muy gàtt-gàtt moo gën a foor mais sayfi yi ñi naan day joxeek ñàkk ñooñu mo looloo tax sax Seydil Hadji taalif ñaan gi mu def ci sayfi yu ndax sëñ Babacar nee na tiijaan bu dul jàng sayfi yu moo golo gu mënta yéeg a yam xam nga golo gu mënta yëg fu ko xaj fekk da koy daal di sonal te alxisbu fii mooy eh, bu ko xeexe nag dañu ni na ko jaamoo waaye bul ko xeexe du joxe ak ñàkk Maodo moo bind ni moo bind eh, ca ñaanam ga xaw ma nu mu ko tàmbalee ti sax ca sayfiyu ba قال ابن عثمان الفقير الحاج يقضى له من الإله الحاج سمي تاج العلماء الأئمة إمام دار الهجر والنبوة جلا وخنك بمدقي نيوني say fii day joxe ak ñàkk la ni loolu de ba ko tiijaan yi dégg naa ko woy wax njariñ yi ci nekk moo tax mu dem ba ca biir mu ni id kasratul asmaai qad dalat ala anna al musamma dhurtifaain wa ula waaw id kasratul asmaai ni ki bari tur qad dalat dalay tegtal ala ala anna al musamma ni ko la ñu tudd dhurtifaain boroomu yëkkatiku la wa ula ak ko kawe mooy la ma sama benn promotionnaire doon wax naa ma Babacar ak Khalifa ak mbay lu ñu bokk ma ne ko yow yaa doof rek benn nit ki la di mun naa ma déet loolu mënta nekk moo tax ñu ngi koy tudd yaminul dinañ ko tudde yaminullah samsaamullah xisbu sayfi nag Seydi Xaaji Malik wax na ca biir ni sittuuna alfan min karamatin bihi yaa fawza man laazamahoo li rabbihi waaw nee na juróom benn fukki jinni yiw ak i teraanga ak i xéewal mu ngi ci biir sayfi kooku dina joxe ñàkk Maodo ni yaa fawza woo naag texe man ki nga xam ni laazamahoo taqoona ak sayfi yu di ko jàng li rabbihi ngir yàlla rekk boroom mu ni wa marratu benn yoonu sayfu minhu bu tukkee ci sayf yu ibaadatu sana jaamu at la ci naafila moom sayf yu wa marratun minhu ibaadatu sana say nawafil nga def ko at jàng ben say fiyu mu tolloog mom wa laylatul qadri ak yolu laylatul qadri muni ni fa jaani bi sina na nga tet nelaw nga met gis nga waye nak lakin shartahu lada tijani sixatu lisnadi ala al adnaani da ngay jël nak tariqa bi ba nopi ñaan ci ndigal waaw da nga ciy ñaan ndigal ndax charte bi mooy nga doon tiijaan ba noppi waaye boo doonee tiijaan it ñaan tariqa bi da nga ciy ñaan ndigal maal wudu in udima al ahdaru afalana walakumul xafaaru waaye nag danga koy jàkk ci njàpp soo ko amul nga tiim sañ ngaa tiim jàng say fiiw sañ ngaa tiim jàng xisbul eh, eh, baxri sañ ngaa tiim jàng yaaman azhara jamila sañ ngaa tiim jàng salaatul fatihi waaye jawharatul kamal rek nga dul sañ tiim di ko jàng ndox rek laa bu ndox rek jàpp tax nag say fiyu du joxe ak ñàkk la nga cay ñaan yëpp rizqan waasian xalaalan tayiban loolu kay waaye nag am na ci euh, lim boo xamante ni am na ñoo xam ni bul ko xeexee sam papa daan na wax ni bul xeexee say fiyu mooy nit tooñ la rek nga dem di ko jàngal say fiyu parce que sayfi fi mu ñu moy moy jasi xam nga jasi mom jasi mom fu mu fekk cior rek lay dal di def waaye man nga koy jang ben yon par bis te gina ci seigne abdou mu ni seydi xaaji malik bu weer masaana terwu day jang ñaar suba jang ñaar ngor ba muy fukki fan moy 40 bu xeye jang ben muy 41 bayeti ba wer wo am na ñoo xam ne nag bu dee day ëpp dañuy jàng benn yoon par bis di ko waaye boo koy jàngit da nga cay boole xisbul mughni parce que xisbul mughni sëñ Mansour moo wax sam papa ko mooy ndoxum radiateur parce que sëñ Abdullah dégg ci boppam mu ni boo dee jàng alxisbu sayfi te yoo jàng xisbul mughni malaaka yi dañ lay sopp te dañuy ñaan nga gaaw a ñëw waaw malaaka yi dañ lay sopp te dañuy ñaan nga gaaw ñew bo de dee jàng mu ne ko lutax lo jang ci say lu mu bari bari bari bari ben yon ngay jang mohni ni na bo jangon jinni jàngoon say fiyu ngay jang mu ne ko kilomètre yi lu mu limu limu fekk ndox ma ci radiateur bi moteur bi du chauffé hein so defoon 1000 kilomètres te ndox mi ang ci radiateur bi moteur bi du waaye boo defee deux dix kilomètres te ndox mi radiateur bi manqué ndox moteur bi day chauffé kon lu lim yi bari bari benn moxni bi moo koy moo koy moo koy ramp moo koy défendre su ko defee loolu ah da ngeen si ñaan ndigal ah waaw kay bàcc gis nga ko moom mu nga jóge ba njaxate di sama soppe boo xam ni otoom soppe duudu kenn mbay sax la ci bind foofu waa dëgg moo de siis bàcc wax deug man defe won na ni sax wax deug do meuna ñew gis ngeen ko mu bàyyi liggey mak yépp ñew tabarakallah ngir yalla rek te nga mu ngi ba njaxate ci xam nga loolu reyna lool wax euh man dal ma ngi leen di sant bu baax li ma metti rek euh mbir mi da ngeen ko woyofal te ba ma bëggoon rek mu gënono ngeen baal nu bu ko defee ñu ñaan ñu jàng fatiha salatul fatih ayatul kursi ikhlas ixlaas falaq ak naas salaatul fatih fay jërëjëf ci la ñun ñëpp ya ñaan yalla ci barke yenen bi sallallahu alaihi wa yalla nañu yalla def dund dund le wér ak wérle mucc ak mucc le fan wu gudd wér sa ñu daje fi ay ati at bu baax a baax ci barke yonent bi